na taxa si pesa gulu gulu gulu gulu gulu gulu gulu yaay benn gulu waay gulu gulu gulu gulu gulu gulu gulu yaay ñaari gulu waay gulu gulu gulu gulu gulu gulu gulu kay ñetti gulu waay sende yaay yaay jóge te sisi moo te sisi mooy daw foofu laa jóge ñaari body test ñaari body test ñaari body test si mooy daw. test ñaari body eh, du dangay daw. fi man ak yow mën nañ ci bokk fanaan. ci yaatu na di xoolal espace bi nii yëpp. yaatu na mais xa xa man moom man damaa tëdd ci man kese fii ci damay waddi yenn taay ci xare bilaahi. boo waddee rek ma kaftale delloo waay. bilaahi man naa ma damay bëriwul de man. garaaw man léegi mën naa tëdd nii yow nga tëdd nii mën nañ sax bañ a laalante. waaw yow ni laalante wul kii kii na la koy def kii noo koy def. kii nga yàgg ko xanaa mënoo maîtriser sa bopp yow. ma laa maîtriser moo moo du toog. man mën naa maîtriser sama bopp man bàyyi ma tëdd fii nii. Sakho yow xamoo li ma bëgg a génn sa ah, ah, ma dem man après man dellu ma suñu kër ma génn dem si mbedd mi mën naa fanaan si mbedd mi ku ma jot sax mën na maa yóbbu man jigéen laa yow xanaa xooloo ma comme sa yaay bi la su ko jur rek man bàyyi ma dem. des nit nga gis ko ngay di ànd des fois nga xam ni toog na xaar ne la. Mhm. ah nag dégg naa ay borom kàtte kàtte. Hmm? dañuy ñëw foofu mu dakkal leen. bon waaw dégg ay ay ay borom limousine dañuy dem foofu mu dakkal leen. Hmm? ak yi. yëpp dañuy foofu mu di leen dakka moo wax mu ni man yow rek laay bugg. Ah. sama yaram daw léegi nag mu bugg nga xalaatal ma nan laay def. Ah, po po po po takk ko daal. xam nga dégg ma la. takk ko daal. Fatou Kiné. yow lu la dal ku ñëw daal koy. waaw amul eh, waxtaanu wax. a dara da ngaa bugg a fanaan pour nga fanaan fii ah, pour nga fanaan fii d'accord na d'accord na ah, géntoon naa li ba ñëwee waaw waaw jarul nag ngay génte nag yaa ngi jàkkaarloo ak moom normal de dama ni xalaatoon naa bu may ñëw rek a ah, baax moom moom xam àdduna xam àdduna ñu bari ñu bari dañu xam seen wóol la waaw waaw waaw agsi dama dama dama yow yàlla dagal sa loxo demal ra demal xam nga balaa xaalis nit ki. waaw waaw demal rek. caxas nit ki ah. du eh du da ngaa wax ba pare. da ngaa ñëw pour ñu héberger. ah ni ko nag yëg ma dara ña ko bàyyi moo def. moo dem rek ñu may ma sama sëriñ sax moom. waaw yëg ko yaa na am problème. yes kenn sama rakk bi. waaw nan de la ma la amul woon dama lay créé. non man dama créé nag mooy julli tisbaar. foo jëm tisbaar bi laay julli. nga julli tisbaar léegi kenn nag. man. waaw du ko xam. jeex na eh. <laughs> xam nga jigéen dañuy def nii. waaw. permis waaw.